sëriñ ibrahima kebe sëriñ ibrahima kebe mi ngi feeñ jamono ci atum 1859 ci dëkk bu ñuy wax njaañ njaañ nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di sagata ci département bu Kébémer ci région nag bu lugaloo ci dëkk boobu nag la sëriñ ibrahima kebe nag feeña jamono ci atum 1859 di doomu sëriñ abdoulaye kebe ñu gën koo xam ci sëriñ abdu tabara sàmbu ak ku ñuy wax soxna roqaya gajaga ñu gën koo xam ci soxna tóoj gajaga ñaari jëmm yii nag ñoo meññ sëriñ ibrahima kebe mu jamono nag ci dëkk boobu nag di njaaña moom sëriñ Ibrahima Kebe nag am na nag ñu mu bokkal kii di soxna Roqaya Gajaga ak kii di sëriñ Abdoulaye Kebe ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Moor Tooj Kebe ibnu soxna Roqaya Gajaga ibnu sëriñ Abdoulaye Kebe ak ku ñuy wax soxna Assu Kebe bintu soxna Roqaya Gajaga bintu sëriñ Abdoulaye Kebe ak ku ñuy wax soxna Asta Jaañ Kebe bintu soxna Roqaya Gajaga bintu sëriñ Abdoulaye Kebe ak moom sëriñ Ibrahima Kebe ibnu soxna Roqaya Gajaga ibnu sëriñ Abdoulaye Kebe kon moom sëriñ Ibrahima Kebe ñett nag la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent muy kenn ku góor ak ñaar ñu jigéen bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Ibrahima Kebe waajuram sëriñ Abdoulaye Kebe ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Tabara sàmbu moo ko dalal nag lii di alxuraanul karim ba mu géeju lool nag ci wàllu alxuraanul karim ginnaaw waajuram nag dem na itim nag ci ku ñuy wax El Bachir ngir nag jàng fa nag wàllu xam-xam loolu itim nag tax na sëriñ Ibrahima Kebe sax tudde nu ko doom ndax sëriñ Bachir Kebe mi ngi fi woon te El Bachir mii la ko tudde ginnaaw El gànnaar nag ngir sàkku ji xam-xam ci naar bu ñuy wax Sidi al Muxtaar Sidi al Muxtaar moom sax defoon na ay way nag ci jëmm ji nag di sëriñ Ibrahima Kebe ngir nag di ko sant ak di ko gërëm ci farlu goo xam ne nii sëriñ Ibrahima Kebe am na ko nag ngir nag ñëw ci moom nag di jàng si nag lii di xam-xam ci ñett ñi nag la jaar nag ci wàllu xam-xam mu wéy nag des nag ci loxoy waajuram nag ci dëkk boobu nag di njaañ ba ni mu matee nag liggéey mu jógee njaañ nag ñëw nag ci dëkk bii nag di Louga loo doon fa yaxantu ba mu fa ñëwee nag gise woon na faa kub tubaab boo xam ne nii nag embauché woon na nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe ba tax na tubaab boobu nag ku wóolu woon na kii di sëriñ Ibrahima Kebe la sëriñ Ibrahima Kebe nag ku fonkoon nag liggéeyam la taxoon na nag tubaab boobu nag wóolu woon na sëriñ Ibrahima Kebe nag ba ber ko sëriñ Kebe nag nekk nag commerçant bu mag nag ci dëkk boobu nag di Louga loo lépp loo xam ne nii itam nag dana ko may xaalis nag sëriñ Ibrahima Kebe nag daana ci yëngatu ba taxoon na itam na sëriñ Ibrahima Kebe nag amoon na sax ay titre foncier ci dëkk boobu nag di Louga loo mu wéy nag nekk nag Louga loo jëloon na fa nag lii di du tiijaan ci sëriñ maalik sàll nag bu lugaloo waaye waajuram sëriñ Abdoulaye Kebe ab xaadar la woon kii di sëriñ Mouhamadou Yedali nekkoon ab sérif nag ci dëkk bii nag di njaañ moo joxoon waajuram wii nag wérd mu wéy nag des nag lugaloo nag di jënd ak a jaay nekkitim nag ab muxaddam ci ginnaaw nag kii di sëriñ Malick sàll nag bu lugaloo teewul nag léeg-léeg nag daana dem njaañ nag daa seeti nag wala réew waajuram wii nag di sëriñam di sëriñ Mouhamadou Yedali sëriñ Mouhamadou Yedali nag daana xamal nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe soo bëggee bëggee egg nag ci suñu boroom du man mii Mouhamadou Yadaali maa lay egg la ci suñu boroom El Hadji Malick Sall moom itim du la egg la itim nag ci suñu boroom ki lay egg la ci suñu boroom nag nekkul nag jamono ji nag ci réew mi waaye saa bu yàlla dogalee ba nga gis ko nag da nga mën a egg nag ci suñu boroom waaye du man du El Hadji sàll wax jooju nag sëriñ Mouhamadou Yadaali nag daa wax sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag déggu ko woon itim nag ak nopp yu tëx ndax daana ci bàyyi xel nag bu baax a baax mu wéy nag des nag lugaloo nag di jënd ka ginnaaw El Hadji Malick Sall ba ni Serigne Touba Xaadim Rasool nag jógee ci géej gi ci atum 1902 ma wax leen nag li indi Serigne Ibrahima Kebe nag ci yoon wi nag di yoonu Xaadim Rasool wi mu jaayantee Xaadim Rasool nag nekku murid nag ginnaaw bi Serigne Touba Seexul Xaadim jógee ci géej gi nag ba jaar nag ci dëkk boobu nag di ndar géej jóge ndar géej nag jaar lugaloo nag bi mu jaaree lugaloo nag ci kër Serigne ma siise ngóone doon na ko fa defarloo am mbaar nag mbaar moomu mu doon defarloo Serigne ma siise ngóone Serigne ma siise ngóone nag lam doon defaree mbaar ma nag ci magasin Serigne Ibrahima Kebe nag nag la ko jëlee ginnaaw bu mu ko jëlee ba noppi nag la ko sëriñ Ibrahima Kebe nag di xamal moom sëriñ ma siise ngóone li nga ma war a fay def naa ko àddi yéey boroom mbaar mi loolee nag bi sëriñ ma siise ngoone defaree mbaar mi ba pare nag nettali na ko seexul xaddiim seexul xaddiim nag waxoon na sëriñ ma siise ngoone na ngir mu wool ko nag sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag ñëwoon na nag doon wuy si xaadim rasuul dafa fekkoon nag xaadim rasuul fatu ginnaaw bu mu fa toogee ab diir nag tàmbali woon na nag wirdu woowu ko Alaaji Maalik Sàll joxoon biir wirdu wi nag la ko sëriñ Tuubaa xaadim rasuul Kebe nag doon na di diital tuuti ngir sàmm nag sarti wird wi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yónni waat baneen ndaw nag ngir mu woosi waat nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag mujj na dagg nag wird wa dem wujji nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu mu nuyoontee baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba noppi moom sëriñ Ibrahima Kebe Seexul Xaadim nag doon na ko laaj nag naka la tudd mu di ko wax nag Ibrahima Kebe nag laa tudd Seexul Xaadim nag na ko laaj la dëkk mu di ko wax nag njaañ nag la mu di ko wax nag ab du Tabara Samb nag mooy sama waajur Seexul Xaddim nag doon na wax nag kii di Sëriñ Ibrahima Kebe di ko wax nag Abdou Tabara Samb moomu de xam nañ ko ci njaañ ndax moom ko bari daraja la Seexul Xaddim nag wéyoon na nag doon laaj nag kii di Sëriñ Ibrahima Kebe Sëriñ Ibrahima Kebe nag doon xamal ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul man damaa amuk jaaxle man kat damaa bokk nag ci ab tariixa te tariixa bi itam nag daf ñuy tere ku ci bokk nag di ziyaare baneen wàlliwu nag wu bokkul nag ci tariixa bi baneen bi itim dama faa jël wird te wird wi itim nag daf ñuy tere boo ko tàmbalee lépp loo doon def nag da koy bàyyi ba mu egg te man nag ñëw naa ziyaare nag beneen wàlliwu nag wu bokkul nag ci tariixa bi te boole koog nag wirdi wi tàmbali naa ko nga wooma ma dog ko googu jaaxle daal nag laa am seexul xaddim nag kero dafa mel ne sax lu aalu ci kanamu kii di sëriñ ibrahima kebe di ko wax ne ku xamul fa ñuy defaroo du xam fu ñuy yàqoo ibrahima kebe itam fii ci ñun ku ne bëgg na fee ñëw waaye ku fi yàlla wóowul doo fi ñëw fii ci ñun ku fi ñëw lu la yàlla joxe tim nag ñu jox la ko ginnaaw bu seexul xaddim waxee lool nag sëriñ ibrahima kebe sëriñ ibrahima kebe nag xalaat na nag la ko nag nag sëriñ Mouhamadou Yadaali nag doon wax nag dangay ngay sonn du man mii nag maa lay eggale ci suñu boroom El Hadji Malick Sall moom nga yaakaar itam nag du la eggale itam nag ci suñu boroom te ka lay eggale ci suñu boroom nekku fi waaye dafa nekk ci ab tukki ginnaaw bu mu xalaatee lool nag nee na tekk nag ab diir doog a jaayanteeg nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ginnaaw bu mu jaayanteeg Seexul Xadim ba noppi nag dafa wéy nag di laaj Seexul Xadim waaye saa bu laajee Seexul Xadim rek Seexul Xadim du ko tontu ba mu yàgg nag Seexul Xadim di ko xamal ne Ibrahima Kebe su ma neexoon ëllëg yowmal xiyaam jéggi siraat te ku jéggi siraat ma tàbbal ko ajjana waaye nag Ibrahima Kebe nag dama lay laaj ci buuri àdduna yii buur boobu nag amuk yéwén nag tabb la dara nag ci nguuram na la nag lépp lu la neex nag man nga koo def ma fekk si la ca su boobaa nag Ibrahima Kebe nag nooy def sëriñ Ibrahima Kebe nag na tekk mu ne ko nag su boobaa nag soo goree dangay ngay àttee nag moom buur ba nag na muy àttee da nga yem ca lii nag moo indi nag sëriñ Ibrahima Kebe nag ci yoon wi mu nekk nag murit bu dëggal nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul Cissé jóge bari jàmm Cissé nag dem Sànnoosi ginnaaw Sànnoosi nag la jaar fi mu jaar nag ba ñëw nag ci dëkk bii nag di Daaru Marnaan ginnaaw Daaru Marnaan nag la fi def nag ab diggante bu tuuti nag amaat fi takk-takk ak ceddo yi ñu waat ko nag ci réew mii nag di gànnaar sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag bàyyi koo fi nag dem gànnaar gànnaar googu na sëriñ Ibrahima Kebe nag demu fa waaye nag daana yónnee bañ ko daa wooye nag boroom yóbbante bi ginnaaw gànnaar nag cee yéen jolof cee yéen jolof googu nag sëriñ Ibrahima Kebe nag daana fa yónnee nag ay addiya lu tollu juróom-ñetti giléem nag la wutoon su ñeent yi ñëw ñeent yey yóbbu lii di nag ay addiya ba tax na addiya yu takk yooyu nag mu daa indil seexul xaddiim nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolof yéemoon nag la ko daa déggee ba taxoon na nag wéyoon na nag di yóbbu rek ay addiya ci dëkk boobu nag di ca yéen jolof loola itam nag taxoon bindoon lettre nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe di ko ca sant di ko ca gër dërëm lettre ba nag sëriñ Ibrahima Kebe nag dafa sàkku woon nag ci njabootam ñu denc ko ndax bëggul woon nag mu tasaaroo la ko ca seexul xaddim wax day bañ nag bu ëllëgee ak njabootam gis ko di ca sukkandiku su boobaa nag ak jaamu yàllaam nag day sooxe lool moo waral nag njaboot gi nag denc lettre ba waaye lettre ba nag mi ngi ci loxoy nag sëriñ Maali Kebe nag di ab sëtam nekk itam nag ci dëkk bii nag di Kebe maire ginnaaw lettre bu yéeme boobu sëriñ Tuubaa seexul xaddim bindoon sëriñ Ibrahima Kebe ci dëkk boobu ci ŋàññ gu ko nit ñi ŋàññ ci alalam jum fob nag di ko ki sëriñ tubaa xaadim rasool seexul xaadim nag woowoon na ko ak ngan nag ci dëkk bii nag di ca jolof keroog bi sëriñ ibrahima kebe nag di jógee lugaloo nag di ñëw ca jolof mbooloo nag la àndaloon nag di wuy si ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool nag ci dëkk boobu nag di ca jolof ginnaaw bu mu eggee jolof nag ba gisante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool sëriñ ibrahima kebe nag daana wax ne seexul xaadim nag wax na ko loo xam ne nii ci ca yéen jolof du ko nettali nag mbindeefa sëriñ moor aram kebe nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ ibrahima kebe daana wax ne suñ masaa waxtaan ak sëriñ ibrahima kebe ci baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul bañ dugg ci loolu ko seexul xadim waxoon lu waxtaan wa neex neex neex sëriñ ibrahima kebe day daal di soppeeku te jataa bayitam nag day daal di yàqu ba tey kii di cheikh mamadul faadal mbàkke mas na nettali nag kii di sëriñ njaañ kebe nekkoon nag ñeenteelu xalifa sëriñ ibrahima kebe di ko wax na bisub keroo nag bi sëriñ ibrahima kebe nag ñëwee nag ci dëkk boobu nag jéyeen jolof fa la ñu fekkoon nag seexul xadim doon ñu liggéeyloo ñun ñëpp nag dañoo bàyyi woon liñ doon def doon wax ne sëriñ ibrahima kebe mii daal ñi ngi xool nag ban waaj waaye nag la xaddiim nag di joxa waaye bisub keroog nag ci kërug cëyeen gi amoon na fu bunt boo xam ne ni seexul xaddiim daawul nangu nag kenn jaar ci keroog nag far la jaarale nag kii di sëriñ ibrahima kebe ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir kebe di doomu sëriñ ibrahima kebe toog na cib jataay bu mu dul faadal mbàkke nekk mu dul faadal mbàkke nag jàpp cim noppam di wax ne bàyyu waa jiidee ku seexul xaddiim fonkoon la daat fay nettali nag histoire bii mu nettali woon sëriñ njaañ kebe mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di lugaloo moom sëriñ ibrahima Touba Xaadim Rasuul nekk nag taalibe bu dëggal nag ci ginnaaw ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul Serigne Touba Seexul Xaadim nag bindaatoon na lettre nag kii di Serigne Ibrahima Kebe soo delloo nag ci lettre bi ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul bindoon Serigne Ibrahima Kebe ginnaaw bu mu nuyoo moom ni mu baaxoo di nuyoo moom Seexul Xaadim mu ne nag lettre bii may bind nag maa ngi ko jëmee nag ci murit bu ñuy wax nag Ibrahima Kebe ñu gën koo xam nag ci Kebe maa ngi ne nag gërëm naa ko nag ba faaw nag te du ma dej nag di ko gërëm nag ba faaw maa ngi koy ñaanal nag suñ borom jéggal ko moog ñaari waa waajuram te suñ boroom nag defal ko nag lii di sanxadatu daaray ni sanxadatu daaray ni nag mooy texek àdduna ak texek àllaaxira sëriñ tubaa xaadim rasool nag daa di wax amiin nag daa di tëj nag lii di lettre ba te signature bu seexul xaadim signé nag ma ngay wax nag ku ñuy wax Mohammed ibnu Mohammed ibnu Abibullah nag moo ko bind ñu teewlu nag lettre bi sëriñ tubaa seexul xaadim bindoon na sëriñ Ibrahima Kebe bismillahi rahmani rahim ila muridina ibrahima almaaruf bi kebe salaamun yuallimuhu bi annahu mardiyun bila saqat باطل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ولوالديه وأن يسعده في الدارين آمين كتبه أحمد بن محمد بن حبيب الله عصمه الله تعالى ووفقه وتوله Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Ceyeen Jolof ginnaaw Ceyeen Jolof nag jóge na fa nag ñëw nag ci dëkk bi nag di Njaareem Njaareem googu nag la Seexul Xadiim nag yónni nag ku ñuy wax Sëriñ Cheikh Xari Jeng di nijaay nag ci Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nga waxal ma nag Ibrahima Kebe mu mu bàyyi jënd ak jaay nag ma defal ko nag lu gën dawal poox su ko defee nag na fa nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax geet suuf sa dammel mayoon maamam mu toog fa nag ginnaaw bu sëriñ Cheikh Khary ñëwee nag ba wax loolu nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag lépp lu mu amoon nag na ko nag ci dëkk boobu nag di lugaloo woon na ak njabootam ak mbooleem ñi nga xam ne nii nag dañ ko doon liggéeyal nag ci jooju di leen xamal ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi ngi may xamal ne nag naa bàyyi nag lépp loo xam ne ni dafa ajo nag ci wàllu njënd ak njaay te dem nag ca suuf sa dammel nag mayoon sama maam maam ma toog fa nag di liggéey ginnaaw bu mu yëkkatee yooyu kàddu nag am na ci ñoo xam ne nii nag loolu jaaxaloon na leen téewul nag bëgg-bëggub seexul xaddim ba moom sëriñ Ibrahima Kebe def na ko magasin yam fa amoon ak fas yam fa amoon ak kër yam amoon nag ci Louga loo nag da koo daa di maye xëy nag ubbi ay magasin am nag lépp loo xam ne nii waaye soxla na ko nag kaay jël kama yaakaar nee na naa jóge Louga loo dem faneen te booba nag sërëñ Ibrahima Kebe nag amoon barke la nag ci dëkk boobu nag di Louga loo ndax amoon na fa ay nag moo tax mu maye lépp ginnaaw bu mu demee nag ci suuf soosu nag di geet la fa nag ab dëkk nag ci atu jàpp 1915 ko nag ngiro daa wax ne nag suuf sii nag la ma sama sëriñ bi wax ne nag naa fi toog kon nag fii nag laa fas yéenee ngiroo ba ëllëg yow mal xiyaam loolu moo waral nag dëkk ba nag ñu koy wooye ngiroo kebe ginnaaw bu mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di ngiroo nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ngiroo nag nekkoon nag dëkk bu metti nag ci sëriñ Ibrahima Kebe taxoon na nag egsee nag xaalis ginnaaw bu ndaw yee egsee nag ba indil kii di sëriñ Ibrahima Kebe xaalis ba di ko wax ne nag ka nga yaakaar di sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nee na nag nga dimbali kooko ndax xam na ne kat ku tàmmu xaalis nga te itam nag moo la dël nag ci àll bii sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo nag dafa delloowaatoon xaalis ba doon xamal ndaw ya ne maa ngi fi toog ci ndigalam ba tey digganteem ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo Seexul Xaadim nag yónniwaatoon na yeneen ndaw ci sëriñ Ibrahima Kebe di ko xamal ne suñ boroom gërëm na ko yonent bi gërëm na ko ma gërëm ko xamal na ma ne Ibra Kebe moomu àddiye wàcc na ko te kenn sañu tuta lekk wu ñaqam te soobu ko ba tey digganteem ak Serigne Touba Xaadim Rasul juróom-ñetti giléem yooyu daa indil ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul ay àddiya ci cëyeen Jolof ak njaareem am na benn bis genn giléem ci juróom-ñett ya Serigne Touba Xaadim Rasul waxoon ndaw yi indi woon àddiye di leen xamal na buñ delloo ñu wax sëriñ Ibrahima Kebe ngiro giléem gu weex ga su demee nag na ko yeewi mu dem ginnaaw bu ndaw yi ñëwee ba xamal loolu kii di Serigne Ibrahima Kebe ngiro Serigne Ibrahima Kebe ngiro nag mi ngi doon xamal ne Serigne Touba da rasul de jaaxal na ko ndax giléem gii muy wax ne na ko bàyyi mu dem ca fourrière ba la ko jënde woon ba tey ci digganteem ak sëriñ Tuubaa xaadim rasul soxnaam sii ñuy wax soxna faati kebe tolloon na fi nag ab diggante bu méttee metti ginnaaw bu ci sëriñ ibrahima kebe yéemu ci tolluwaay soxna soosu nag di soxna faati kebe taalibeem bu dëggal ba nekkoon kenn ci moom di sëriñ siini jang nag la yónni woon ci ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul di ko wax ne soxna faati da jaaxal na ko ak ñaan nag la doon sàkku ci moom ginnaaw bu sëriñ siini jang ñëwee ba wax na ko ñaan ginnaaw ko joxee soxna faati kebe la ca am alaaji mbàkke kebe ba tax na alaaji mbàkke kebe moomu nag la sëriñ ibrahima kebe nag fayee nag kii di seexul xadiim ba tey digganteem ak seexul xadiim amoon na taalibe bu tudd sëriñ aatu kan taalibe la nag bu gëmoon sëriñ ibrahima kebe yépp xew woo xam ne ni sëriñ ibrahima kebe amoon na ko lépp loo xam ne nii mooy jagal xew wa moom sëriñ aatu kan mi moo ko daa joxe nag ci ñaqu boppam yéemoon na kii di sëriñ ibrahima kebe ba tax mu kalaame woon kook seexul xadiim ginnaaw moom ci wax nag li aatu kan nag di def ci moom sëriñ Ibrahima Kebe nag mi ngi doon xamal seexul xaddim joxe addiye ma gënal di ko nangu te jëf jii nag aatu kan nag di def ci man nag rëy na lool seexul xaddim nag mi ngi doon xamal sëriñ Ibrahima Kebe Ibra nag luñ la joxati jëlal ndax yow lépp luñ la jox kat fa neex suñ borom rek nga koy yóbbu te luñ la jox nag nangul yow nanguwoo man maay nangu ba tey diggante sëriñ Ibrahima Kebe ak seexul xaddim seexul xaddim joxoon na ko mbubbam ako wëlis akub kaasub ataaya wëlis wa mbubb ma ak kaasub ataaya ba man mii di Abdourahman teg naa ci sama sama bët mi ngi ci dëkk bii nag di Kébémer ci njabootu sëriñ Mor Aram Kébé mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Kébé ba tey diggante sëriñ Ibrahima Kébé ngiro ak Seexul Xaddiim juróomeelu xalifaam bi di sëriñ Mor Talla yor na ay dàll yu jóge ci Seexul Xaddiim ak palaat bu jóge ci Seexul Xaddiim te ca waajuram wa sëriñ Ibrahima Kébé la ko jëlee diggante sëriñ Ibrahima Kébé ak Seexul Xaddiim nag diggante bu yaato yaatu la mu wéy nag topp nag ci Seexul Xaddiim sëriñ Ibrahima Kébé amoon na ay daara ndax dëkk boobu di ngiro na ay góor yàlla nag yum àndaloon nag di liggéey ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu mën caa ràññee taalibeem bu dëggal ba te nekkoon kenn nag ci moom di Baay Siini Jeng ginnaaw Baay Siini Jeng nag am na kuñ doon wax sëriñ Abdu Ñaan nekkoonub jarbaatam am na kuñ doon wax itam sëriñ du Faal am na kuñ doon wax Omar Ñaan am na kuñ doon wax Baay Demba Njaay am na itam kuñ doon wax Moor Say Kebe am na kuñ doon wax itam sëriñ Mbaalo Kebe am na kuñ doon wax itam sëriñ Kebe ak kuñ doon wax Moor Saaxo ak ñeneen ak ñeneen nag ñum àndaloon nag di liggéey Sini Dieng Serigne mii nag borom Pastef la nag yónneen yu bare bare bare yu sëñ Ibrahima Kebe daa yónni nag ci digganteem ak ko baax ki Serigne Touba Seexul Xadiim Serigne Sini Dieng mii itam nag la ko daa yónni ba tax na Serigne Sini Dieng nag kenn munta tudd histoire Serigne Ibrahima Kebe te doo ko ci boole ndax kenn la ca woon Serigne Sini Dieng moomu nag kii di Serigne Ibrahima Kebe sax joxoon na ko doomam muy ku ñuy wax soxna Ummi Kebe soxna Ummi Kebe moomu nag moo meññ ku ñuy wax Serigne Modou Aram Dieng Serigne Modou Aram Dieng moomu nag moo meññ nag Serigne Sini Dieng nekk commerçant bu mag nag ci marché bi nag di marché Ocass kon Baye Sini Dieng maamam lañ ko tuddee Serigne Abdou Fall mi itam bokkoon nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw Serigne Ibrahima Kebe Serigne Abdou Fall mi nag moom meññ ku ñuy wax Serigne Mor Fall Serigne Mor Fall mii nag ci guerre mondiale 14 18 bi bi Serigne Touba Xaadim nag di laaj mag ñi ñaari soldaar nag la Serigne Ibrahima Kebe joxe woon ci guerre mondiale bi muy ku ñuy wax Serigne Mor Fall di doomu Serigne Abdou Fall mii ak ku ñuy wax nag Mor Gajaga nag di jarbaatam waaye Mor Fall mii di doomu Abdou Fall mii la ñibbisi bi mu ñibbisee nag lu yéemee yéeme nag xew na nag ci jëmm jooju nag di Mor Gajaga bi mu ñibbisee ba sëriñ Ibrahima Kebe teg ko bët la génn nag lii di àdduna sëriñ Abdou Ñaan nekkoon na jëwriñ itam ci daara sëriñ Ibrahima Kebe yi nekkoon na itam nag jarbaatu sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag joxoon na ko doomam doomam ju ñuy wax soxna Xadi Kebe soxna Xadi Kebe moom moom meññu ku ñuy wax sëriñ Omar Ñaan soxna Aminata Ñaan soxna Faati Ñaan ak kii di soxna Marema Ñaan kon ñeenti bant yooyu nag la ci sëriñ Abdou Ñaan am Baay Demba Njaay itam bokk nag ci jàmbaar daal di toppoon sëriñ Ibrahima Kebe moo meññ na ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ndiaye Ngiro jàmbaar la nag ci ëttub sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Mor Say Kebe moom itam nag bokk ci jàmbaar yi toppoon sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Ibrahima Kebe nag jébbaloon na ko doomam ju ñuy wax soxna Busa Kebe soxna Busa Kebe moom nag moo meññ ku ñuy wax sëriñ Mor Busa Kebe moor Saaxo bokkoon itam nag ci kenn ci jàmbaar yi toppoon ki di sëriñ Ibrahima Kebe bisub keroog bi sëriñ Ibrahima Kebe di génn àdduna ci atu 1957 ci kër gi mu amoon ci Touba ci teewaayu nag Mor Saaxo mii la ak doomam ju ñuy wax Alaaji Mbàkke Kebe Mor Saaxo moomu nag moo meññ ko ñu wax sëriñ Fàllu Saaxo sëriñ Seex Saaxo ak sëriñ Mbàkke Saaxo Mbaalo Kebe bokkoon itam nag ci ñenn ñi yaakaaroon sëriñ Ibrahima Kebe moo meññ nag Alaaji Njuge Kebe mi ñépp xamoon ci àdduna bi ba tax na Mbaalo Kebe moomu sax bi mu génnee àdduna mook doomam ja Njuge Kebe ci barabu sëriñ Ibrahima Kebe lañ leen denc sëriñ Mbaalo Kebe mi sax tudde woon na doom kii di sëriñ Ibrahima Kebe muy Ibra Kebe Mbaalo ba tey sëriñ Mbaalo Kebe moomu faboon na rakkam ju ñuy wax soxna ko sëriñ Ibrahima Ibrahima Kebe nag ngir mu dëkkoo ko sëriñ Ibrahima Kebe nag am na ci njaboot muy ku ñuy wax El Hadji Mbacke Kebe ak soxna Boussa Kebe doomam sëriñ Omar Bousso yoroon na nag doomu kii di sëriñ Ibrahima Kebe muy ku ñuy wax soxna Say Kebe soxna Say Kebe moomu nag am na njaboot ak kii di sëriñ Omar Bousso ñu mën caa ku ñuy wax sëriñ Cheikhouna Bousso soxna Aminta Bousso sëriñ Hamdi Bousso maam Bousso Bousso sëriñ Bada Bousso ak kii di sëriñ Abdoulaye Bousso mu wéy nag topp nag ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool jël léppam nag jébbal cheikh dul moustapha mbàkke di ko xoole xaadim rasuul boole ko nag wéy nag des nag ci dëkk boobu nga xam ne nii nag fa la ko xaadim rasuul dël di ngiro waaye nag mu gi nag ngiro googu nag moom cheikh ibrahima kebe nag amoon na fa ay jafe-jafe ginnaaw ñu ko yëgalee cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko wax ne sëriñ ibrahima kebe ci dëkk boobu mu nekk nag di ngiro nag am na fa ay jafe-jafe la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke doon sàkku ci moom nag mu jóge nag ci dëkk boobu nag di ngiroo saalum nag la ko doon yóbbu dëkk bii nag ñuy wax madina Kebe na gor fa ab dëkk ginnaaw bu ndaw yi sëriñ Ibrahima Kebe yabalee ci ndigalul Cheikh dul Moustapha Mbacke ñu dem Saalum ngir fa yéene woon faa gor nag ab dëkk la lenn nag ci mag ñi ñëw nag ci Cheikh Mamadou Moustapha mbakke di ko xamal ne sëriñ Ibrahima Kebe mee nga bëgg yóbbu nag ci dëkk bee nag di Saalum xanaa yëgoo nag li ci sa waajur wa waxoon di sëriñ Touba Xaadim Rasool mag ñi nag doon xamal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Touba Xaadim Rasool de mas na di sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo addiye na la te doomu aadama nag sañu tuta saw ñaq nag te soobu la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag woolu woon na nag donga yi jotoon a dem Saalum nag ñu daal di dellusiwaat nag ci dëkk bu sell bii di tuubaa mu woolu nag kii di Serigne Ibrahima Kebe Ngiro di ko xamal ne nag maa ngi jéggulu la suñu waajuroo wax ci yow itam xam nañ ko waaye man nag nit dong laa yoon wi nag di yoonu murit nag ëpp ma cib xam-xam waaye nag dañ ma cee jiital maa ngi sàkku nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ci mag ñi fi nekkal ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nga wax ma nag man mag nag nga ci bëgg dëkkal ma boole moom Cheikh Ibrahima Kebe Ngiro Biro nag doon na xamal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Guédé nag laa bëgg a dëkk nag ci Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Bousso nag joxoon na suuf nag Serigne Ibrahima Kebe ngiroo nag ci Guédé nag ngir mu dëkk fa kër ga nag moo tolloog poste courant Guédé bi di fi tolloog dég Dakar Cheikh Mamadou Moustapha nag sàkk woon na itim nag ci Serigne Massamba Mbacke ngir mu jox nag suuf nag Serigne Ibrahima Kebe Ngiro itim muy suuf su muy bayee suuf si nag di njaxaay nag itim nag la ko joxoon Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itim nag sàkk woon na ci Serigne Madiba Silla ngir mu goral Serigne Ibrahima Kebe nag suuf soosu ginnaaw bu Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke toogee nag ñaareelu xalifa xaadim rasuul la jëlee nag sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo ci dëkk boobu nag di Gédé sama mag ji Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moo la jëlee woon ngiroo nag indi woon la Gédé waaye man itam nag dama bëgg na nga gën maa jege si nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba loolu rek laa doon sàkku ci yow indi ko nag ci surra fi tolloog wetu kër doomam ji nag di Alaaji Mbàkke Kebe ci yoonu Gédé wi ci kër googu sax la génnee àdduna ci atum 1957 ganeen njabootu xaadim rasuul gi itam nag kasaalika moo xam Cheikh Mamadou Lamine la ak sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro Cheikh Mamadul Bachir ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku amoon kóllëre la ak kii di sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro ba tax na kii di sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro tudde na ko doom kii di soxna Faati Ja Mbàkke bintu Seexul Xaadim ku daa ñëw nag lu baree bari la ci kër gii sëriñ Ibrahima Kebe génnee àdduna ci Touba daa fi seet si nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe ba tax na bi sëriñ Ibrahima Kebe génnee àdduna soxna Faati Ja Mbàkke bintu Seexul Xaadim moo doon xamal soxna yi sëriñ Ibrahima Kebe dëkkoo ak njabootu sëriñ Ibrahima Kebe gu ndaw gi seen waajur wa sëriñ Ibrahima Kebe ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ñu boole woon lépp loo xam ne nii war na leen ci wàllu saabu ci liggéey bi ngeen di liggéeyal sëriñ Ibrahima Kebe maa koy joxe ndax ma wéyal kóllëre gi ñu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul boole woon sëriñ Ibrahima Kebe na ko amoon kóllëre nag ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu mën cee ràññe sëriñ Masamba Kande Buso ndax ñoom ñaar kat Seexul Xaadim woowoon na leen di leen wax ne damaa bëgg na ngeen booloo te nasoo te xam ne yéen ñaar kat yéenay dend ay kër ci sëriñ Masamba Kandi Bousso génnee àdduna bi ko sëriñ Ibrahima Kebe fekkee ca ko denc sëriñ Mbàkke Bousso bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ko amoon kóllëre la ak sëriñ Ibrahima Kebe ba tax na bi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jëlee sëriñ Ibrahima Kebe ci dëkk boobu di ngiroo indi ko ci dëkk bu sell bii di bi ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke laajee ci mag ñi wax ma koo ci bëgg a dëkkal ma boole laa ak moom sëriñ Ibrahima Kebe sëriñ Mbàkke Bousso la ko waxoon ba lool moo waral sëriñ Ibrahima Kebe amoon na kër nag ci dëkk boobu nag di Gédé foofee ci wetu postu courant gedde bi sëriñ Masamba Mbàkke ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke keroog bi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke indee kii di sëriñ Ibrahima Kebe ci dëkk bii nag di Touba ci wetu sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Masamba Mbàkke nag la waxoon mu jébbal nag suuf na kii di sëriñ Ibrahima Kebe ba tax na Cheikh Masamba Mbàkke moo jébbaloon suuf nag fii tolloog njaxaay nag sëriñ Ibrahima Kebe nag mu defoon ko ay tool ba tey ci digganteem ak seex ma Mbàkke ñaareelu xalifaam bii di sëriñ Mor Aram Kebe ginnaaw bu xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim seex ma sàmba mbàkke nag la ko féetale woon kon moom ak jaxasoo amoon nañ ko sëriñ ma di ba silla bokkitim ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim rawatina nag kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke keroog bi sëriñ ibrahima kebe ñëwee ci dëkk bu seel bii di tuubaa te cheikh mamadul moustapha mbàkke sàkk woon ci cheikh ma sàmba mbàkke mu jox ko suufa sëriñ ma diba silla nag la joxoon ndigal nag ngir mu go suuf sa ginnaaw bu mu génnee àdduna moom sëriñ ibrahima kebe ngiroo ci atum 1957 sëriñ hamsatu jaxate doon na xamal njabootu sëriñ Ibrahima Kebe Ngiroog yéen de yéen a ñàkk baay waaye man mii de maa ñàkk mag ak xarit ndax sëriñ Ibrahima Kebe ñun ñaar ay mbokk lañ te lu dul loole itam nag seexul xaddiim dañoo boole woon ngir wéyal nag kóllëre gi ñu seexul xaddiim boole woon lépp loo xam ni soxla ngeen ko nag ci wàllu suukar man maa leen ko gàddul maam seex Mbay ku jaxasoo woon nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe ndax alxam binta ja ak faa mbay ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen alxam binta moo meññ Babacar Kolo nag moo meññ maam Cheikh Mbay faa mbay mi bokkoon nag alxam binta ja waajur wu góor ak waajur wu jigéen moo meññ ma yoro faa mbay ma yoro faa mbay moo meññ Abdou Tabara Samb Abdou Tabara Samb nag moom meññ Serigne Ibrahima Kebe ñoom ñaar ñoo bokk benn maam mi loolu itam nag taxoon na nag ñu nekk nag ñu jaxasoo ba tax na maam Cheikh Mbay te woon na doom kii di Serigne Ibrahima Kebe ko amoon wëllëre la nag ak kii di Samba Jaara Mbay bu lugaloo ba tax na Cheikh Samba Jaara Mbay nag way na ay way nag kii di Cheikh Samba Diarra Mbaye ma ngay wax Serigne Ibrahima Kebe tab nag bu fekkoon na ab kursu la nag mën a jël nga ndam li te fas wa nga waroon nag dawandoo wuta kenn li ma tax di wax nag dafa nekk nag wax ju dëggu nag ci man tab gii nga tabe nag ak baax gii nga baax nag képp koo xam ne nii nag daf la koo soxore du deñ nag ci ak ngëlamte képp koo xam ne nii nag tagg na la nag ci jikko jii nga mel yaxul nag ak taggam ndax kenn musta ñëw ci yow nag jóge fa nag réccu maa ngi sàkku nag ci suñ boroom nag mu fay la nag ngën gi fay ñu teewlu nag way yi Cheikh Samba Diarra tabe naggu cheikh ibrahima keɓe ngiro tabe woon qaala samba diara mbay ibnu ahmadou mbay yamdahu khalilahu ibrahima keɓe lakal fadailu bayna al arbi wal ajami ya cheikha ibra keɓe al maarufu bil karami laqad warista jududan kunta baynahumu qarman kariman yusaffi al xilla bissimami inna allasi nilta taxsiisun qusista bihi qabla al wilaadi jara fi al lawxi wal qalami shamsun taarrat an akmaami al gamaamati laa tuxjab bi an tuuqida al anwaaru fi zulami nilta sacaadata fi daarayni kaamilatan aslan wa far'an wa haza gaayatul azami laqad laxiqta jihaaran kulla man sabaqu ila almayadini xatta fuqtaka alalami wa bacda haza sabaqta alkulla muxtawiyan kulla almayadini fiha xayru musdaximi laqad sarafta canaana annafsi muqtaximan xawla aljamaacati xatta fusta bilkarami fa nilta sabqan falam tulxaq fa saabiquka sabaaqu xataa xawayta alqisla الأولى للقدم وأنت آخر أهل الوقت أولهم برا وجوا وهذا الفضل لم يرم قد نلت سا نسبا إذ نلت سا حسبا فلا تسابق للميدان في العجم لساك قلت وقولي صادق حسن فحاسدوك أديم دهر في الغمم لم يفسد المدح من من يثني عليك ولم وما رد عن مغناك سا ندم جزاك ربك في الدارين خير xayra jasa xatta tafuuqal wara way yooyu nag ngeen doon dégg nag mooy way yi seex Samba Diarra Mbaye nag wayoon nag kii di Serigne Ibrahima Kebe Ngiro Cheikh Samba Diarra Mbaye nag wayaat na yeneen way itim nag kii di Cheikh Ibrahima Kebe Ngiro xam naa ku dem ci njaboot gi daa ko gis ndax tabe ak yéwén nagu Serigne Ibrahima Kebe Ngiro nag tabe woon tabe googu mu tabe woon nag taxoon na nag mag ñi nag mu amoon nag ñëpp nag ak kóllëre Serigne Ibrahima Kebe nag laata muy génn àdduna ci atum def na itam nag ci dëkk bi nag di Kaolack seeti woon nag doomam ya fa nekkoon muy sëriñ Malick Kebe di ab taawam ak sëriñ Njaañ Kebe ak laneen nag ci njaboot ga fa nekkoon ginnaaw bu mu jógee Kaolack itam demoon na xombal seeti itam nag kuñ doon wax soxna Roqaya Kebe soxna Roqaya Kebe moomu moom mee ñu soxna Ndey Jóob soxna Ndey Jóob moomu nag El Hadji Jiili Mbay lañ ko joxoon ginnaaw bu mu jógee xombal dem na Dakar seeti ku ñuy wax sëriñ Cheikh Kebe ak ku ñuy wax sëriñ Lamine Kebe ginnaaw bu mu jógee Dakar la dem Kebe meer itam seeti nag njabootam ga fa nekk ginnaaw bu mu dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw bu mu egsee Touba fekk fi soxna Mbène Gadiaga mu bokkoon nag ci soxna yi dëkkoo woon soxna Mbène Gadiaga nag mi ngi doon xamal sëñ Ibrahima Kebe ngiroo sëriñ bi da yow tukki moom daawoo ko def sëriñ Ibrahima Kebe nag doon ko xamal ne daal dama doon nemmeeku ji daal taalibe yi ak mbokk yi fan yooyu nag mu doon doog a ñibbi si ab tukki daana def nag saa bu xëyee nag alxuraan boole koog nag ay ñaan ba lenn sax ci njaboot ko da ngay jàngalu boole koog nag di ñaan mu doon leen xamal ne sax àjjumay démb ji sax foogoon naa ne duma raw ajuma ja delsee nag ca suba ga la fam nag doomam jii nag di soxna Awa Kebe soxna Awa Kebe nag ba nëgëni mi ngi fi doon ko xamal na nag dama bëgg na nga defaral ma ay nàkk dañu sarxe ko ginnaaw bu ñu yendoo defar nàkk ya boole ko jàngum alxuraan sarxe ba ngoon te guddi googa nag la sëriñ Ibrahima Kebe nag génn adduna muy ajuma ñeenti fan yi safar ci atum 1377 ci teewaayu Mor Saaxo ak doomam ji nag di El Mbàkke Kebe ak ñeneen ak ñeneen nag ci njaboot gi rawatina nag doomam ji fi des nag Ibrahima Kebe mi ngi génn adduna ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ci quartier bii nag di Soura ci suuf si nga xam ne nii moom la ko Cheikh Mahamadul Faadal Mbàkke jébbaloon ñu tudde ko ngiroo Kebe ci suuf soosu nag la génnee àdduna bisub ajjuma ñeenti fan ci weer wii nag di weeru safar ci atum 1377 ci gàddaay gi ajjuma ñeenti fan yi safar ci atum 1377 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 30 août 1957 vendredi 30 août 1957 ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci xilaaf Xalifaaf ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lañ ko yëgal nag mu dul Faadal Mbàkke bisub kero sax Cheikh dul Faadal Mbàkke sax ñëw na foofu nag ci kër gi di leen wax na nag lu fi jar jooy nag amu fi yéen ñàkku leen man ma ñàkk nag Baay Ibra Kebe ñu fanaanal ko foofu nag ci àjjuma ji bés set nag di samdi lañ ko jébbal boroomam nag ci armeer yu mag yi ci teewaayu nag mboolem murit yi fi nekkoon mu dul Faadal Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ca wetu xaritam ba di sëriñ Masamba Kandi Buso seexul xaddiim moo leen waxoon ne ba boo ngeen nasoota booloo ndax yéen ñaar kat yéen ay dend nag ay kër nag ci àjjana loolu nag moom moo waral nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag jébbal ko nag ci wetu xaritam ba sëriñ Massamba Kandi Bousso ci armeer yu mag yi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag seedeel ko nag lu am solo moom sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro di wax ne yéen njaboot gi nag ñàkku leen nag Baay Ibrahima Kebe man mii nag di mu dul faadal Mbàkke nag maa ñàkk sama waajur waaye nag maa ngi seede ne yow mal xiyaam bala maa gëm na am na kenn nag ko ëpp ab cër nag Baay Ibrahima Kebe kawe nag ma di ko gëm dañoo tudd turam nag ma dégg ko waaye lu dul lool nag munumaa nangu ne nag am na na kenn ku ko ëppale moom sëriñ Ibrahima Kebe ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Ibrahima Kebe li ko dale ci le 30 août 1957 ba le 3 mars 1965 kam fayee El Hadji Malick Sall bu lugaloo di sëriñ Malick Kebe moo ko wuutu nag nekk xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Kebe ngiro mooy ku ñuy wax sëriñ Mor Aram Kebe moo toog xalifa ci le mars 2005 ba le 14 avril 2007 ñetteelu xalifa sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro mooy kam faye Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasoul moo too xalifa ci le 14 avril 2007 ba le 21 décembre 2007 ñeenteelu xalifa sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro mooy kam faye borom Njaañ ñu di ko wax sëriñ Njaañ Kebe moo toog xalifa ci le 21 décembre 2007 ba le 23 juin 2010 juróomeelu xalifa sëriñ Ibrahima Kebe Ngiro mooy sëriñ Mortala Kebe moo fi toog nag ci le 23 juin 2010 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal nag kii di sëriñ Mortalla Kebe nag ci toogaayu sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo suñ borom am na ko man na ko yàlla na ko def sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku ci lu liñ tudde nag ak màggal ndax ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1957 njabootam gi nag daanañ def nag bis boobu mu génnoon àdduna nag saa bu dikkaatee nag ñu di ko fàttaliku Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag moo leen xamal ne Baay Ibrahima Kebe bu leen fi nekk nag di ko dëjalaat bàyyi leen nag ba màggal gi ñëw ngeen boole ko màggal gi nag di ko ñaanal lool moo waral nag buñ nee suba la màggalug Tuuba di fukki fan ak juróom ñaar nag ci weeru safar njaboot gi nag dajaloo nag ci kër gi sëriñ Ibrahima Kebe nag génnee àdduna nag ci sura tam tudde woon ko ngiro Kebe ñu dajaloo fa nag di ko ñaanal wàcceel ko nag ay kaamil waaye nag am na beneen bis nag bu ñuy fàttaliku nag kii di sëriñ Ibrahima Kebe jaarale ko nag ci ak cant ndax sëtam bii di sëriñ Kebe moom sëriñ Amar Faal Kebe moom sëriñ Ibrahima Kebe ngiro laajoon ndigal nag ñeenteelu xalifa sëriñ Ibrahima Kebe bi di sëriñ Njaañ Kebe doon ko wax ne nag dafa bëgg nag bis bu muy sant nag maamam di sëriñ Ibrahima Kebe ngiroo sëriñ Njaañ Kebe nag joxoon na ndigal nag sëriñ Basiiru Kebe nag ngir muy sant nag waajuram woowu nag ak maamam jooju nag di sëriñ Ibrahima Kebe cant gi nag ci Kebe meer nag lañ ko daa amalee ginnaaw gi nag mbooleem sët yi nag sëriñ Ibrahima Kebe yi waxtaan nañu ak sëriñ Basiiru Kebe ngir ñu fob bis boobu nag ñoom ñëpp nag ñu maase si nag di sant nag sëriñ Ibrahima Kebe ñu jëlee ko nag ci dëkk boobu nag di Kébémer indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci kër gi sëriñ Ibrahima Kébé nag génnee àdduna ci kër googu nag lañ koy fàttalikoo ci samedi bi njëkk nag ci weeru avril lii nag mooy màggaluk sëriñ Ibrahima Kébé ngiroo ñuy ñaan ci ga seexul xaddim waxoon ne addiya wàcc na la te balaa nit a lekk nag saw ñaq nag dalaa soob yàlla na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di njaboot gi mu fi bàyyi nag yàlla na ci suñ borom teg loxo te sàmm te aar leen moo xam doom wala sët ak nag niiroo suñ borom am na ko man na ko yàlla na ko def lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom ki dara darajey boroom ngiro kebe